waaw jërëjëf dama leen di euh, gërëm euh, ci teewaay bi déjà di wax ne salon bii ñuy waaj euh, diggante ñaar fukki fan dem ak ñett ci mois de novembre dafa doon salon bu am dayo bu am important boo xam ne ni ASPT ba mu ñëwee ak léegi ak dafa tëkku ci orientation yi nga xam ne moom le président Diomaye Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko joxe ñu ne comme que Sénégal dafa génn ci ay euh, at ci ay jafe-jafe te tourisme doon maanaam benn pàcc boo xam ne daanaka li gën doxal réew mi ci la bokk waaye nag ñu bëri xamuñu ko ñu ne ñun euh, liñ mën a def d'abord mooy fexe déjà waxtaan ak réew yi ñu wër muy Sénégal muy Gambie Guinée Bissau Mauritanie ak cap ñu xool naka la ñuy boole suñuy doole euh, yaatal suñu marché développer produit boo xam ne ñu ñun ñoo koy bokk nga xam ne ñëpp ciy gis seen bopp produit boobu mooy tourisme croisière maanaam lépp lu jëm ci gaal yu mag yi nga xam ne dañuy yóbbu ay touristes diggante réew réew mu doon ñoo xam ne nii daanaka ñu am xaalis la doon lu ci bëri te itam seen séjour day yàgg ñu ne <clears throat> ci adduna bi boo ko wóoree gaal yooyu ñooy euh, maanaam moyen de transport yi nga xam ne li ëpp ci àdduna bi ñoom ñooy ci ci touriste ñoo leen di transporter ñuy jaar fii di dem Amérique di jaar fii di dem feneen te duñu wàcc Sénégal wala bu ñu fa wàccee ñun duñ ci am benn benn benn koom-koom ñu nekkoon nañ taxawal salon bi nga xam ne ñun réew yooyu ko seq yëpp parce que li ñu am ci côte dafa bëri ñun réew yooyu yëpp nañ toog waxtaan xool njëriñu euh, segment boobu naka lañ ko gën a mun a yaatalee ba ñu ñëpp mun cee gis seen bopp euh, ci kaw loolu it ñu ne occasion lay doon pour que ñi nga xam ne seen ay kàngam lañu seen euh, xam-xam màcc ci wàllu boobu ñu mun noo leeral ci wàllu réglementation maanaam lan moo tax tey euh, produit boobu développé wuñ naka lañ mun a defar naka la naka lañ mun a def mais produit boobu ñu def ñu gën koo defar positionné ko bu baax ba nga xam ne tey euh, Sénégal du Sénégal rek sax waaye côte ouest africaine boobu yëpp dina doon attractivité boo xam ne ni képp ku fi ñëw di nga xam ne ah balnéaire bi de xëy na dañoo yaakaar dafa essoufflé waaye tey la gën a taxaw te it dina am koom-koom boo xam ne ni population yi dinañ ko ci am parce que bëgg nañu sax buñ demee ba taxawal croisière yooyu nga xam ne ñun dañuy ñaax privé bi waaye jàpp euh, institution lañ aussi ñu fexe ñu yombal privé bi naka la ñuy mun a def ba teg ay bateau mun a dox loolu waaye ci kaw loolu itam ñu xalaat ne dina doon loo xam ne ni dina tax Sénégal gën a fësal leadership waaye dina tax itamit ñiñ ko seqal ñëpp gën cee gën a gis seen bopp parce que mun na euh, andi kom kom deug la waye it na itam yombal liggéeyu ndaw yi nga xam tay ñu ngi tukki mën na it dimbali jigen yi nga xam ni tay euh ñu ngi ci transformation produit la mer euh, mun nañu tamit fexé ba nga xam classe moyenne yi nga xam euh amna ñu xaalis tay bu a génn boo gisee bateau bu def Sénégal Cap-Vert Guinée-Bissau ak euh, Mauritanie nga mën jé dem ak sa njaboot benn voyage rek nga mun cee découvrir juróomi réew yoo xam ne ak seeni i culture ak seen aada ak cosaan yu wute loolu itam yaakaar nañ ne lu baax la lu soxla la suñu réew yi bu weesoo li nga xam ne ne nag mooy euh, bëgg nañu réew yooyu yëpp lëkkaloo mun di ànd ci yenn salon yu mag yi nga xam ne ni daanaka réew wu ci ne boo demalee sa bopp doo ko am kenn du la gis waaye buñ boolee suñuy doole ñun ñëpp ànd dina tax ñu mun ñoo gën a gis ñu mën a jaay suñuy produit waaw lu ëpp fukki at a ngi nii eh, ñu nekk si ay jafe-jafe yoo xam ne am na jàngoro yu fi jaar lu mel ni Ebola mel ni Covid ak yeneen eh, jafe-jafe yoo xam ne wàllu politique la ah mais bi loolu yëpp weesee nag ñu yaakaar ne dafa jot tey eh, ñu fexe tourisme bi jógaat parce que dafa doon li nga xam ne nii tey boo jël économie Sénégal moom mooy li nga xam ne moo ëpp ci li ëpp recette maanaam dugal dugal xaalis dëkk bi ci la bokk. donc ñun bu ñu yàlla maye ñu am potentiel yooyu yëpp dëgg yàlla yàlla may ñu tey ñu am jàmm te loolu rek moo gën a lal tourisme yi jàmm jooju kon dafa jot euh, ñu taxawal ñun ñi nga xam tey yàlla sas nañu euh, ci confiance président de la république ak euh, le premier ministre ñu yor pàcc moo xam ne ni tey ñooy jëmmal lépp luy tourisme Sénégal waaye itam di jaay destination bi mais ñu xalaat xëy na buñ jéemee ci fànn wi mun nañ ci am satisfaction waaye nag yemul ci loolu parce que li ñu gën a soxal aussi mooy mu am tourisme intérieur boo xam ne nañ ko développé waaye tourisme intérieur balaa ñu koy gën a développé nañ fexe li nga xam ne nii yomb na tey pour ñu def ko ñu commencé foofu ñu doore foofu mooy tourisme de croisière bi nga xam question d'organisation organisation la rek xëy na laaj na aménagement mais comme que dañu xamal ne portu Dakar aussi dafa am projet bu mag war moo la tax muy accueillir ay bateau yu mag ñu kon ñun duñ xaar dañ tabax bi pare nañ door liggéey bi balaa ñu ñu yegg